suba xamoo aji kan lay waxal xamoo aji mën toog fenn gis nga gis nga Kaliphone li ma def toog fenn yàq sa diggante ak say nit yow baax na bu ko bu musuma présenté aji benn kilifa bu ma xam musuma ci dugg aji nu mu mënal def ba am ci nit ñi xaalis dossier bi yeneen elle s'en fout Françoise Hélène live bërki démb Françoise Hélène dafa live wax turu kilifa yi moo xam yi moo man aji di photo wu di vidéo wu nekk ci salle de bain di photo ay photo yu mi sexy di di xooy waa ji ko man dama laa yërëm di la jàppale mais intéressé woom aji même vidéo yi muy def di ko envoyé Cheikh Gadiaga tas na ci réew mi yëpp nekk ci salle de bain di filmé wu di charmé wu di way di ko envoyé Cheikh Gadiaga tas na mi yëpp yow xam nga ci man gis naa waaw Cheikh Amadou de ànd moom ba tey gis nga ni ma def ak Kaliphone ma ko mos naa la dóor mu ne ma déedéet nga weddi ko mu bañ moom moom dafa foog ne li mu wax Kaliphone moo tax Kaliphone dafa yor preuve ci moom. dina wax Kaliphone fon mën na ñàkk retenir boppam wala Françoise Hélène suba ñu tudd xamul kilifa gu ma xam xamul ku may liggéey ndax lépp laa koy nëbb ndax xam naa jikkoom bu yàggee day day jaar ci suuf ci say nit noonu la ma def Mathiam noonu la ma def ak Siaka la ma def ak nit yu bëri yu day jël seen numéro jaar ci suuf di leen mbarante du ma ko yëg non yow foofu nga toll mu toog may toog muy wax Mathiam ma laaj Mathiam te moom ñu nan laa ko jàppee gis aji na lan moo tax comprendre yow muy doog a ñëw ci man amul woon téléphone naa ko joxoon sama téléphone téléphone bi ma joxoon iPhone la woon iPhone bi ak sama mu amaatee beneen iPhone 12 bi ci la ma delloo sama iPhone 7 bi te xamul ne discussion yi des na ci ci laa comprendre aji li mu doon def yëpp iPhone 7 boobu ba tey maa ngi ko denc ndax preuve Françoise Hélène li mu def Mati Trois Pommes Bamba Kassé Ablaye Der Ablaye Der Françoise Hélène mosul xam ne Ablaye Der xam na aji aji moo nettali yëpp Bamba Kassé Ablaye Der Bougane Gueye Dany fekk ñooñu ñëpp aji moo tudd seen tur wax Françoise Hélène Françoise Hélène dem live leen xamu ko ñu wax ko Françoise Françoise xam na koy laaj Diop xam na ne kilifa la bu chantage laaj amul xaalis day dem live ko wax laaj laaj Diop nii laaj Diop nii loolu la def Bamba Kassé ak ñeneen ak ñeneen moom xam nga xam nga lan man xam naa jikko ak mu yàqee Mamoud Diallo te Mamoud Diallo wallahi lazim jàppale ko dong la doon def Mamoud Diallo aji moo ne wëri aji moo ne wëri ne ko jàppale ma donc koo xam man dama lay jox conseil comme man ni ma def xam nga man bi ma récupéré iPhone bi laa gis conversation ci nekkoon yëpp laa xam moom ban genre nit la ndeke moom iPhone bi mu yoroon sama téléphone la kilifa yi ci nekkoon sama xarit yi nekkoon ci góor jéem na duggante ñoom ñi wala di ëffal ñi ak ak ancienne copine am ma yi nga ci jël commission am teg ci. merci te loolu am naa ay man lépp laa yor gis nga Adji Sarr même ay ordonnance am ngi ay même cachet pharmacie bu ma jëndee damaa ubbi dossier teg sax léegi nag sàmmal sa bopp nga sàmm say nit. Sarr léegi gis nga journal Le Monde bi ñuy liggéey bitim réew ñëw fii communication internationale bi yëpp maa ko def ndax gëmoon ko ndax yërëmoon ko mais li ma ko yërëmoon gàcce laa ci am gàcce ak lu ma metti mais rus naa génn wax ko. ut génn ndaw dafa foogoon ne day dem mu dem sama kër yaay mais loolu Kaliphone waroon na wax ko mais Kaliphone du ko ma ko Kaliphone non man non xam la man xaw ma lu ko aji wax mais man Kaliphone dama ko mës a moytu yoon la ñu après li may woo yëpp bëgguma toog ak moom moo ma lu muy wax bu fekkoon dafa rëcc ba dem Salif Salif bee mu demoon foofu kër gi mu demoon sama kër benn xarit la sama kër xarit la maa ko fa yóbbu man mois de juillet bi sama xarit bi bu ma demee France loué ma mois ma am ay gan yu jógee France ak États-Unis tout le mois de juillet aji ca kër ga la nekkoon sali këru deux mille mètres carrés tout le mois de juillet biir kër piscine deux mille mètres carrés piscine lépp ci biir kër gi tout le mois du premier au trente juillet fa la nekkoon man maa jëloon kër gi juillet août septembre ma am ay gan tubaab parce que ñi may liggéeyal ay ay su bëggee dem sali damay àbb sama xarit yi ñi am na ay xarit yu bëri nekkuñu fi ñoo nekkoon woon France mais ñoom nekkuñu fi ku ci soxla sa kër damay jël caabi dem sa kër toog damay jël ko mu dem ci kër yooyu jàppale financièrement boo xamoon ñi ko doon jàppale yëpp di nga téye sa xaalis man nag xaw ma la xamoo ma te bëgguma sax mu xam ne xam naa fu Fatmata Njaay génnoon wax ci man daf koy daf may fay envoyé xoolal kii li wax ci yow xool ndeke moom lu fu lu ma Fatoumata Ndiaye tampi jàppaloon ba may clash réseaux sociaux yi di ma xas di ma kiite xamuma aji moo tax te Fatoumata néegam la toog sukkal ma ne vraiment bëgg nga baal ma àq li ma la def yëpp ah kii de ku yabu wallaay boo boo xamoon àq bi mu yoreel policiers yi nekk foofu boo xamoon li muy li muy def policiers yi nekk foofu di leen di leen menacer di leen chantage ci la dëkk chaque semaine waaye mënuñu ko supporter leen daal man ma nga dem tëddi man mii woo na ma di ma laaj ordinateur dégg nga bu ma la laa bëgg bu ñu toogee mère Fatou si dama lay jox turam mère Fatou si mi nekk ci kër ga ak aji kooku mooy raxasal agent yi moo leen di toggal moo leen di defal lépp parce que aji day bañ di ko defal agent yi kooku mooy mooy togg mooy def lépp ci kër ga kooku maa ko jëlee Linguère ko fi pour mu uuf aji wéttali ko comme yaayam comme xarit amul yaayam xamul yaayam dama ko jëlee woon lingeer pour mu mën a wéttali aji delloo si xelam uuf ko comme yaayam pour mu mën ko kii quoi soo bëggee kooku bu dama koy woo mu ñëw toog ma jox la mu toog sama chauffeur toog soo bëggee sama employé yi fi nekk sama six employé yi fi nekk ñoom ñëpp ma tàgg leen ñu toog lay ñëw nga dégg gis nga photo aji yi ngay gis ci réew mi sama bureau sama waa bureau ñoo ko def gis nga campagne de communication à l'international bi ngay gis man ni maa ko def sama employé sii si ku ma ci wax dañ naan ma madame dimbali ñu rek aji moom bu ñu laajati lenn lu jëm ci aji ñun pare nañ ci moom lenn daal naa la yëgal moytu ko ak say nit dina la dina la jaxase ak say nit yu baax woon wax wax dugg nga mu tax nettali na ko Françoise Hélène wala Californie gis nga Californie def aji biñ koy préparé muy wuy ji sama kër lañ ko préparé avocat bi sama kër lañ ko préparé wi wax wax na ko Françoise Hélène wala nettali na ko keneen wala enregistré xam nga aji ba tey waxuma ne kii yoof moom moo ubbi restaurant bi man police sama ko wax aji saar ba tey waxuma ko mais affaire de say nit yu baax say connaissance say relation kookoo xamal sa digganteeg moom dina ko yàq xamal sa digganteeg sa nit yi sa nit yu baax yi nañ la jàppale defal la nga bañ leen a booleeg Adji Sarr c' est pas parce que koy soxoree parce que ñooñu ëllëg dina leen yàq xoolal Bougane Gueye Dany mi nga xam ne dafa bëggoon jàppale Adji dong ba fii keroog Mati trois pom noonu Bamba Kassé ay turu ñoo xam ne ñoom dañoo amoon ci moom yërmande dong bëgg koo jàppale te Ablaye Der ñooñu ñoom Bamba Kassé ñooñu ñaata yoon la ñuy yónnee seen i ay famille yu aji ay famille yu aji. ay papay aji ñu koy yónnee ay cinquante mille ay cent mille orange ma ne loolu fekkee naa ko lu dul benn di ñaara te ñoom ay journaliste kese lañu ñoom sax def nañ ci donc buñ toogee ba seen tur naan la ñoom ñi ngi def nii ñi ngi def te man sa leer na ma leer na lu dul benn di ñoom ñi envoyé ay famille yu aji dimbal ay cinquante mille ay cent mille orange ma ne bu ñëwee ba ñu yàq seen tur Françoise Hélène bu ko yëgee c'est que aji da wax ko Françoise Hélène boo moytuwul audio bi ñu ko transféré sax Françoise Hélène bi nga xam ne tey tey mu farak Macky Sall suba mu bañ a farak moom jour bi ko Macky Sall joxul lu day woote di wax ci man di wax ci man loo xamante ne lii neexul a dégg mais damay gars yi dañ koy reparler mu di ko dégg muy wax ci man lu bon loolu Kaliphone na ko Kaliphone da koy woo xamul ne maa ci ba xam jikkoom bàyyi ko ci biir ndax bés a ngi ci bis yi te bés boobu dina ñëw incha allah wala dina ko xam ne yaa ngi wax ak moom parce que bis bu ñu ko xamee bu génn ci yow. delloo si saxal a def ni bopp yoo xam yow bul ko ko wax. est-ce que xam nga ne man naanee ndox ne añee ñu wax ak yow nit ma ko wax rek. ci mbedd bi laa déggee ne da ngay wax nga aji aji musuma wax sa wax ba muy wax yëpp musuma wax sa wax mu tax musuma wax sa wax lu mu la ñàkkalul du ko defal maa la ko wax koo xam ne da nga dem toog ci ñoom ay nit ba Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi da doon live di Fouta Tampi da doon live di ma attaqué